ci ci yow dépense woo dara nit ñi dañ ñu ci dund ci kaw nit ñi yow bu su suñu sañoon ngay tëgg bis bu ne yow pertal ñoom pertun mais ñu am meneen pexe mu nuy wut pour gagner de l'argent muy perpétuel bi moo tax bii passé ma ni télé yi ma accompagne yëpp doon télé bii da ngeen di occulter l'international ku nekk bitim réew bëggee seetaan combat bi day fay ca loo ca beneen yoon ca loolu li tax ma fayloo may ko waa Sénégal parce que sama kàddoo ma jiitu woon ndax huis clos la ñu naroon def bi ne dañuy def huis clos ma ne comme engagé wu naa ba pare dama koy may ñi nekk biir Sénégal yëpp fu nit toog soo amee TNT mu mais doo ko seetaan ci canal moo tax sama partenaire u télé yëpp dama leen ni kenn du ko seetaan ci nit ñi borom site yi

sama làmb sit dootul fa dugg eh, ku ko bëgg a tee seetaan toog sa kër da ngay fay parce que làmb ji di ñëw même per bi dañ koy def ci biir Sénégal. per yow kon business bi daal fu mu toll nga jiite mais mais ku dul business sama doom ji bugaan di day business maanaam mu ngi toog foofu. <laughs> day business dafa jóge ndar bi muy ñëw indiwul dara. business ba yàlla lu ko yàlla na yàlla na gën a bari mais lépp da koo def da koo teg ci yoon. di ci créer emploi di fay pourtant mënoon naa yem ci site rek benn benn kii bu ndaw nga xam ne du leen fay du am benn employé di usurper ay image yu jaamu di yóbbu di ci am astut mais li muy def lépp pour fay ay personnel yu bëri la pour def bokk ci développement réew mi mais amee sa benn appareil bu ndaw kenn mënul tu la noppalu mille sites ci biir réew mi ba pare nag naa fekk yi bëgg leen a supporter di wax ni tax ñu loolu mais mais mais mais sont pay per est-ce que du am ay inconvénients ci ci ci lambou bi parce que ñu bari ñu ngi poser wu cette question. bii passé zéro faute la def. parce que dañ ko tegul won ci bi mi soog di dor. bon début bu né dafa difficile bi mi soog di dor dana am ay problème ay failles mais bi amul ben faille le contraire bi de bloquer nañ ci ay sites yu bëri. ñu bari bloquer na fan yii yëpp ñu may woo di ma dimbali ñu débloquer ñu te kenn laaj dimbaliwul du duma débloquer kenn. bloqué nañu ñu bëri parce que ñun depuis lo euh, fa la ñuy bloqué ku ñu ko wala nga amee sa téléphone wala ngay jéem a euh, live yu kenn xamul yooyu dañ lay bloqué nga toog bëgg a liggéey doo ko mën ñu bëri bloqué nañ leen am na ci ay sites yu mag yoo xam ni. absolument bloqué nañ leen waaw. benn instant sax déclaré woon nga fi fayit waaw euh, ba taxoon nga génn ci làmb ji tey nga ñëwaat ñëw jël date yi gën a baax am affiche également yi nga xamante ne am nañu solo lool ci làmb ji. ñaa amaguma euh, euh, waaw ci bi nga jot a am. le bi ma jot a am laa jot maa ngi nii amee maa ngi nii amee ñetti combat wu ma dab. amagoo dab nga am <laughs> Balla Gaye moo gën a rëy ci année bi amaguma dab. amaguloo dab mais nga am affiche yu am solo <laughs> fan nga rootaatee. ba taxawat ba teggat ko yu nga xamantene ay centaines de millions ñing ko ci tuddu euh, euh am fit rek ak ñeme risqué ak am samay pexé ak ci période bu metti aussi. Mhm. Mhm. ci période bu metti bi ma dugg ji am samay pexé fi ko fi rek yi lu mu doon waaw pexe. Bougane ana Bougane Bougane sa pexé yi nga ubé télé bi la bëgg nga wax ñoo ko. <laughs> toog tok ko toll tok Bougane pexé mëno di jël comparaison ci Bougane. yow la ñu poser question sama digënté bo xaju mais dama bëgg mu wax leen. parce que yow yaa fi toog ay toogee rek. loolu dama ni pexe am naa samay pexe pour bëggal réew na ma ci réew mi ñaanal pexe yooyu parce que man li may lépp même su ma ci ay milliards réew maa ngi bég kon boog bu nu bëgg a ba pare bëgg maa ñaanal samay pexe <laughs> nan ma bàyyi ak samay pexe comme ñoom ñu ngi ciy bëgg. ñu bari jàpp ne dafa am ñu nekk sa ginnaaw. dama ni ay ñu bari jàpp ne dafa am ah, ay nekk sa non bu ko bu ko raay raayal ah, ñu bari dañoo jàpp ne que état du Sénégal moo ko ngemb actuellement. état du Sénégal moom xam na fi ñu. Eh, xam nga Sénégal ku fi am dara ñu ne état la ngemb. gouvernement yi. ñu ne guvernement la ngemb man état la ngemb Abdou Diouf laa bokkal. benn maam mu nekk fi président depuis pendant vingt ans mosuma lekk dërëmam. mais président. Mhm. Mhm. xam nga ne wax Abdoulaye Wade moom waxi nopp parce que faru mu Macky Sall sama rakal sama président la man ñëpp xam na ni liggéey liggéeykat la maa ngi samay pexe nag ni ñëpp amay pexe man opérateur économique la euh, apporteur d'affaires la man naa lijjanti samay lijjanti même tey suma état doon jox day fekk ma service rendu lan may jox. mais pas ci làmb. c'est important. siiw du jàmmi borom cara Lepaluya mo